te yàlla dafa dogal comme Dieu le bon Dieu est xaw ma woon ni assemblée nationale dina demee noonu moo xam nga délégation de vote benn nit boo wootee sa waa benn nit rek nga mën a votel munoo voté ñaar ñetti yoon ñeenti yoon mais moom délégation de vote am c'est directement à mon nom yàlla dafa juste après ñenn ci ñun suñuy kilifa woote. bon j'ai eu des gens qui à kii ñu nga xam ne ñoo bokk benn bokk jox ko délégation de vote dama def on va gagner man du ma def loolu maa lànk délégation de vote bi bépp délégation de vote bi ma ko jot c'était devant tout le monde te loolu du obligation du ragal du dara dañu am confiance ci man rek jiital ma. boobu après nga woteel ko par force. non woteelu ma ko moom moo ma ko xam nga délégation de vote lan lay firi moom moo signé mooy bu amee ngant bu sa biir dawee boo amee dëj boo ñëwulee boo amee ngant. votel à ma place léegi dem na léegi comme man délégation vote bi si amoon noonu la def man droit daf ma daf na ma porter plainte alors Amath sur le caractère sur le fondement légal euh, de cette euh, de de de de de, de cette taxe c'est-à-dire à partir du moment où elle donne une délégation de de, de vote est-ce que juridiquement mën na ko retirer waat est-ce que Farba Ngom en votant pour Aminata Touré sous le prétexte que kooku moo ko jox délégation de vote est-ce que euh, viole na loi bon xam nga assemblée dafa am ce qu'on appelle disposition du règlement intérieur joxe na ce qu'on appelle la vote par procuration am na. vote par procuration dafa am assemblée. mais soo xasee ba dindi ko xam lañu on yaa ce qu'on appelle en droit le parallélisme des formes maanaam nit ki li nga joxe maanaam su la décret fale décret moo lay dindi. su la arrêté fale arrêté moo lay dindi maanaam li la jox droit boobu moo la koy xañaat comme li mu wax danaa amante dafa bindoon bind mooy dindi wàll li mu dafa waroon a bind déposé ko devant la la la table du président bi doon. devant la présidente de séance. de séance bi euh, le plus âgé le plus âgé xaw ma. doyen d'âge doyen d'âge wala waroon déglu na ko cette présente procuration annule et remplace la première. voilà. la jël ko ko léegi à ma place je vais rentrer mais je de voter monsieur X. député portant parti nanga wala coalition nanga mais gannaaw bindul forme parce que li forme la këyit la bind la kon gannaaw dafa bindoon bind moo koy dindiwaat ce qu'on appelle droit bi mu joxoon bind la kon bu koy retiré waat droit moo koy joxaat il doit pour nekk maintenant cette présente euh, procuration ou délégation de vote annule et remplace l'ancienne la la première. mais bu ko deful mën nañoo voter à sa place même bu ko neexul. waaw non mais mais parce que procuration bi moom mooy def ça ça fait foi. bien sûr amul beneen bu ko annulé kon. donc le président maanaam bi ñu leen ne moo am. maa la wax loolu. ñu ba gis quand le contraire acte contraire amul on va décompter a pas eu euh, la loi. non non parce que moo bind procuration moo signé parce que parce que présent même les votes. bi vote bi jàllee bi wu ko waxoon ne musuma joxe délégation. musu ko lii tax ma denc ko. comme on dit l'assemblée la la lan nga xalaat ci explication yi Farba. quant à nag la démarche là c'est c'est affaire politique parce que man li mu wax nii yëpp. am na ci loo xam ne man xamoon naa ko peut-être dafa am benn question moo ko bëgg a laaj mooy concernant en fait les vote par procuration man dañ ma ne président moom moo la wax ni boo xësee ba récupérer délégation de signa de kii délégation de vote yi ku la ko ci laajaat na nga bañ bëgg ko jox. loolu ay wax caaxaan la loolu amul. je vais te dinaa trahir benn secret wax la ko. Mhm. pour wax la ne comment fonctionne Macky Sall. Mhm. xam nga am na loo xam ne man rek maa ko xam ku la ko wax keneen day wax lu ko neex wallahi lazim ak wéeru koor bi ak waxtu yàlla il m'a jamais dit bul jox kenn pour on a même a même on a jamais parlé de procuration ou de délégation de vote loolu ça a et décidé à nous-mêmes avec les députés nee la Abdou Mbow moo njëkk a jël kàddu ne Farba Ngom yow xam nga Abdou Mbow su ma su ma njëkkee jam ci affaire euh, Macky Sall ci kanam ñëpp ça veut dire que pour que ñëpp soit yow xam nañ sa diggante ak président Macky Sall mais même yow wóoluwuñ la Abdou Mbow yow sax woolu wuñ la xam nga lan la ñu wóolu nañ def délégation de vote ñaari mbir xam nga délégation de vote yi c'était pas que dañoo am ñaaw njortu ci nit ñi nit mën naa jógee foofu parce que y a eu des députés ñu amoon soxla la veille de notre départ on a eu deux députés même ànduñu ak ñoom jógee jógee jóge jóge Saly directement Dakar dañ fi amoon dëj yàlla dogal ñu am dëj mais directement dañ tajee ak ñoom assemblée mais boo tardé woon ba heure de vote bi ñëw xam nga heure de vote du la xaar mais délégation de vote bi c'était pour des précautions Macky Sall wax ne ne on n'a jamais parlé de ça yëgul tinul xamul ti ba léegi musul tiim délégation de vote d'accord beneen aussi président xam nañ seen diggante yeen ñaar seen rapport presque fusionnel nga xamante ne daanaka benn ngeen ci wàllu engagement léegi euh, Mimi Touré boo ko déggee bi dafa mel dafay junj ne président daf ko waxoon ni daf koy jox président assemblée nationale est-ce que loolu lu lu sax mii mii. Uh-huh. day wax lu ko neex. d'accord bi ko bi ko Macky Sall di fal président de conseil économique social ku mu ci waxante. laaj naa la ko. moom ñoom ñaar dafa xëy nommé ko par décret. Hmm. bi mu koy def premier ministre du Sénégal ku mu ko waxanteel par le parti. Hmm. ni décision de de l'APR e, ni décision de Benno ça a été une volontaire volontaire. confiance ne man dama la dénk premier prescripteur mu ko def ministre de la justice garde des sceaux xalaatu kan la c'était pas décision parti on a quand même un, un, un, régime présidentiel c'est le président qui décide ginnaaw yàlla yooyu ay waxu caaxaan la bi ñu toog di waxtaan xam nga li mu waroon wax waxu lan la waroon wax ñun ñii campagne Benno Bokk Yaakaar campagnal ko Macky Sall mi président de la république ku mel ni ñun du ñu ay sëriñ de mais woon nañ ko Macky Sall président yow yaay jël sa engagement Mimi Touré bi ngay xalaat boobu ku mel ne man wax naa ko waxtaanu biir nekk mais nee naa ko kii ni ma ko gisee waxuma la ay gaaf de mais dafa doy waar de loolu y'a problème on peut pas réussir avec Mimi impossible wax naa ko xaar xaar xaar amat moom parce dafa am lu ma wax boo paree laaj mi dafa am lu ma wax man maa ko wax te bi ma ko wax kenn fekkewu ko dama koy wax ci tali bi et je man maa ko wax bokk naa ci ñu ko wax mu nekk loo xam ne ne surprendre ma parce que man bari naa dugg-dugg bari ay réseau lool moom bu jiitewu woon bi lii rek moo ñuy dal. ça c'est maa la wax parce que ci moom la c'est stigmatisant ah. liste daal elle a été là en 2012 tel nangu koo def directeur de campagne est-ce que mës ngaa gis ci suñu statut politique directeur de campagne ak Macky Sall parce que elle a été toujours nit koo xam ne ne bëgg na nekk directeur de campagne parce que elle jouait sur son carrière nu moom moo gañaloo Macky Sall directoire la daan organiser